sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1859 ci dëkk bu ñuy wax nag gàdd ndemba dëkk boobu nag mi ngi ci wetu sàkkal ci région nag de Louga ci dëkk boobu nag la feeñee jamono di doomu sëriñ Tafsir Magaye Awa Jéeya ak ku ñuy wax soxna Xari Jéeya ñaari jëmm yooyu nag ñoo meññi sëriñ Mouhamadou Lamine gay mii am na nag ñu mbokkal nag sëriñ Tafsir Magaye Awa Jéey mii ak soxna Xari Jéey ñu man cee ràññee nag sëriñ Modou Karim Gaye ibnu sëriñ Tafsir Magaye Awa Jéey ak soxna Xari Jéey jéeya ak ku ñuy wax soxna faati gay bintu sëriñ tafsir ma gay awa jéey ak soxna xari jéeya ak moom sëriñ muhammadu lamin gay ibnu sëriñ tafsir ma gay awa jéey ak soxna xari jéeya ñaari bant nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ngir xamale leen nag njaboot gi mu bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen nag ñoom ñooy ñan sëriñ moodu karim gay bi mu tolloo nag ci jàng la ko waajuram nag sëriñ tafsir ma gay nag joxoon maam cheikh El Hadji si nag ci ndar géej ginnaaw bu mu jàngee nag ci loxoy maam cheikh El jël wird nag ci maam alaaji Malick si njaboot gi mu am nag moom sëriñ Modou Karim Gaye ci dëkk yiñ nekkee nag jamono jii mooy ndakaaru ceesa ak dëkk bii nag di badara ñaareelu doomu nag sëriñ tafsir magay awa jéey mi ak soxna xari jéey di soxna faati Gaye mooy maamu nag sëriñ moodu gay mi nekkoon nag ci kër sëriñ Touba Seex Saalihu Mbàkke ñetteelu doomu nag sëriñ magay awa jéey ak soxna xari jéey mooy sëriñ Mouhamadou Lamine gay mii nag ñu fa yéene waxtaane laataa ñuy ñëw ci mbirum sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag dëkk boobu nag mu feeñe jamono di gàdd ndemba dëkk la boo xam ne itam nag dëkku alxuraanul karim la dëkk boobu itam nag kilifa yu takkoo takk itam nag jànge nañ fa ci biir kilifa ya fa jaar nag jànge fa ñu mën cee ràññee maam cheikh El Hadji Malick Sy bu Tiwaawoon Seydi Rawaan Ngom nag bu paala dëkk boobu nag waa la sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag feeñe jamono bi mu matee dal alxuraanul karim waajuróom sëriñ tafsir magay awa jéy nag moo ko jàngal alxuraanul karim ginnaaw waajuróom nag sëriñ tafsir joxoon nañ ko nag magam ju ñuy wax nag sëriñ sayer gaya Sayer Gaye moomu nag mooy waajuru nag sëriñ Modou Gaye otoraaya ginnaaw magam nag sëriñ Sayer Gaye lañ ko yóbbu nag ci dëkk bu ñuy wax Njiig Faal ci sëriñ Mayoro Faal ba mu fay dem nag moog sëriñ Baara Gaye Faati Mbooj nag ñoo fa àndoon ginnaaw bu mu jógee na nag dëkk bu ñuy wax nag kër maam Anta Diop ci loxoy sëriñ maam Anta bañ fay dem nag moog sëriñ Baara Gaye Faati Mbooj nag ñoo fa Faal bu Njiig Faal ginnaaw bi nag la jógee nag kër maam Anta dem nag ci Baay Xaali ma jaxate kala wéyal fa nag am njàngam nag ci wàllu xam-xam ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy baay xaali ma jaxate kala daa wër réew mi nag di sàkku itim na xam-xam nag ba tey ginnaaw bu mu jeexalee am njàng nag la ñibbisi nag ci ay mbokkam mu dem nag ci dëkk bu ñuy wax nag kaajar gay maamam ju ñuy wax nag sëriñ ayib jirib njaay nag moo ko sancoon ginnaaw bu mu ñibbisee nag ci dëkk boobu nag di kaajar gay ba tàmbali faa defar nag fa mu nekk la am nag menn mag nag mu ko fa fekk di ko xamal ne daal su ma sañoon daal fii doo fi dëkk jëfe na kàddu googu ko mag moomu nag waxoon mu dem nag ci beneen dëkk bu ñuy wax nag jëmooy gay maamam ju ñuy wax nag demba ko sanc mook kaajar nag soreewuñ ginnaaw bu mu egsee nag ci dëkk boobu nag di jamooy la doon xamal nag waa dëkk ba ñëw ma nag ci dëkk bi nag ngir nag di laaj si ndono dama fee ñëw nag doon sàkku nag fu ma mën a nekk nag man fee jaamoo nag suñu boroom waa dëkk ba nag dajaloo woon nañ nag waxtaan ci seen biir ginnaaw bu ñu waxtaanee ci seen biir nag am na ñenn itam nag ci dëkk ba ñu wàññi nag lenn itam nag ci seen suufa jébbal ko nag sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag mii ña wàññi woon nag suuf nag ngir ñu jox ko sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye mii ñu sëriñ Mutufa Siré sëriñ Abdou Anta Ñaana ak lenn itim nag ci waa Warak suuf soosu nag ci la sëriñ Mouhamadou Lamine gay nag dëkkee ba mu fa dëkkee la tudd nag suuf sa nag Kaylaana fa la taxawale kër itim ñu boole ko nag soxna suñuy wax nag soxna Aminta Sëy njabootuk sëriñ Mouhamadou Lamine gay nag gu makka soxna Aminta Sëy mii nag moo leen meññi daana bàyyi ja na nag kër njuga kër njuga nag mi ngi ci wetu dëkk bii nag di lugaloo kër njuga googu nag foofu la tool yi mag ña fa nekkoon nag di liggéey ñu mën ràññee nag ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Kebe sëriñ Daam Penda Seck sëriñ Maam Mbay Gay sëriñ Yuusufa Gay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu fa nekkoon fi la jóge nag dem jaayante ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag ci Mbàkke Kajoor ginnaaw nag bu mu eggee nag ci dëkk boobu nag di Mbàkke Kajoor ba gisee ba noppi Seexul Xaadim nag mi ngi ko doon xamal ne Mat Lamin nag sant naa la bu baax a baax nag ci ñëw gi nga ñëw nag ci sama yoon wi sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag di ko xamal ne daal maa ngi jéggulu ci yéex a ñëw nag gu ma yéex a ñëw nag ci yoon wi sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim nag di ne nag mooy wicc wiccal waaye nag ngëneel nag ak barke xéewal ci waame nag la nekk ci kàddu yi nag la jaayante ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag ci Mbàkke Kajoor Seexul Xaadim nag ma nga doon yokkitim nag ca wax ja mat la min daal ba sañuy bët ñeentee mënoon ngaa delluwaat nag te xam ne nag li nga doon wut nag am nga ko ginnaaw bi nag la ko Seexul Xaadim nag ñaanal mu delsiwaat nag ci dëkk boobu nag di Kaylaana la wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di Kaylaan fa nekk nag ba ni sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim nag ñibbisee ci géej gi dëkk boobu itam nag di kër njuga bayoon na fa nag ab xat xat boobu nag defaroon na ca ñetti junniy xalima jébbal ko cheikhul xadim nag ci géej gi ginnaaw bu mu defaree xalima yi ba noppi nag la ko def nag ci ak gaala tëj ko nag ci ab néeg dogu itim nag ngir xalima ya nag cheikhul xadim nag jot ci bi cheikhul xadim nag jógee ci géej gi ci dëkk bii nag di lugaloo nag la sëriñ Mouhamadou gay nag njëkk gisee waate nag cheikhul xadima ginnaaw buñ nuyoontee ba noppi cheikhul xadim itim nag wanoon na ko nag as saatu di ko laaj ba xam na xàmmee na ko sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag di ko xamal ne daal nuru na ko xalima yooyu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye woon seexul xadim ci géej gi ba mu koy tëj nag ca gaal ga da caa boole woon nag saatu sa ginnaaw kàddu yooyu nag la ko seexul xadim nag di ko xamal ne xalima yi bokk na itim nag ci xalima yi ma doon bind nag ci biir géej gi mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di kaylaan ba ni fi seexul xadim nag bàyyi ko dem nag ci réew mii nag di gànnaar bi seexul xadim nag eggee gànnaar woolu woon na fa nag sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag mu ànd ak nag doomu ndayam nag xaritam sëriñ Baara Gaye Faati Mbooca ginnaaw bu mu egsee gànnaar nag seexul xadim itam nag joxoon na ko fa nag daara jafa nekkoon tolloon nag ci jàng xam-xam ak alxuraanul karima ca mbooloo ma jànge nag ca moom nag ca gànnaar ñu man caa ràññe nag sëriñ Mouhamadou Diop na ak ñeneen ak ñeneen ginnaaw gànnaar itim seexul xadim nag indi woon na ko itim nag ca yéen jolofa ca yéen jolof googu itim ña fa tolloon itim nag ci jàng alxuraanul karim nag ak xam-xam ba tey itim nag moom la leen seexul xadim booleeloon ñu man caa ràññee nag njabootuk seexul xadim gi ak lenn itim nag ci doomu mag ñi ginnaaw ca yéen jolof googu ànd naag seexul xadim nag dem njaareem amoon na kër itim nag ñoo tolloon nag ci penku jumaa ji am na ron yu fa nekk wax nañ ne sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye moo ko fa defoon kër ga itim nag dafa mujj gént njaareem googu itim ña fa tolloon itim nag ci jàng xam-xam seexul xaddim itim nag woowoon na ko njaareem ngir mu jàngal leen ginnaaw bu seexul xaddim nag joxee leen itim nag ci mag ñi ndigal ñu ñëw nag dëkk si Touba moom itim nag seexul xaddim itim nag joxoon na ko ndigal ngir mu dëkk si Touba mi ngi dëkkoon nag ci quartier bii nag di ndaamaatu këram soriwul woon itim nag ngelamu kër googu mu amoon itim nag ci ndaamaatu na ko fa aw nit itam nag ngir mu jàngal leen ñu man cee ràññee nag njabootuk maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Abdourahman Mbàkke sëriñ Abdul Quddus Mbàkke sëriñ Cheikh Faati Fall Mbàkke sëriñ Abdoulahi Jaxate moom sëriñ Hamsatu Jaxate sëriñ Moodu Faati Xari Mbàkke moom Cheikh Masamba Mbàkke sëriñ Moodu Xabbaan Mbàkke sëriñ Abibu Mbàkke imaam ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Seexul Xadiim itam nag joxaatoon na ko ndigal itam mu dem sanc nag beneen dëkk ci wetu dëkk bii nag di Daarul Muxti dëkk bi mu sancoon foofu nag ci wetu Daarul Daarul xayri daarul xayri nag ak daaru muxti ñeenti kilomètre nag moo dox nag ci seen diggante bisib keroog nag bi muy sanc si nag dëkk boobu wóolëréem nag ñu doon wax sëriñ Makumba Faal nag la fa àndaloon ba tax na itim nag sëriñ Makumba Faal itim nag am na foofu suufa dëkk boobu nag di daarul xayri bi mu ko sancee nag ña fa nekkoon ñu man cee ràññee nag bàyyi Cheikh Faal sëriñ Moodu Lamin Géeya ak sëriñ Jabeel Faal ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ci mag ñi mu wéy nag topp nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba ni fi Seexul Xaadim nag bàyyi ko nag ci atum 1920 1927 laataa Seexul Xaddim nag di fi bàyyikoo nag ci atum 1927 woolu woon na nag Serigne Mouhamadou Lamine Gaye nag ci njaareem di ko xamal ne est-ce que bëgg ngeen gan nag ci dëkk boobu nag di Touba Serigne Mouhamadou Lamine gay nag di ko xamal ne gan daal kenn bañu ko Seexul Xaddim nag di ko xamal ne delluwaatal Touba nag te bul jàdd fenn soo demee nag nga xaar gan gi ginnaaw bu mu egsee nag la fatu ci kër gi mu amoon nag ci Touba ba génn guddi nag am ndaw lu ñëw nag ci këram laaj ko nag ñu di ko xamal ne Serigne Mouhamadou Lamine Gaye nag dafa fatu fan yi yépp ndaw la nag di xamal nag ñi ko waxoon loolu cheikh mamadul moustapha mbàkke daal moo ma yónni woon ci moom ginnaaw bu sëriñ mouhamadou lamine gay nag déggee loolu nag ubbi na ndaw la nag di ko xamal ne cheikh mamadou moustapha mbàkke nee na nga ñëw wuy si nag ci kër seexul xadim gi booba nag lu tudd suñ boroom santaan nag seexul xadim ginnaaw bu mu egsee nag la xam ne nag seexul xadim na génn na àdduna mu dëppoog nag ngan gi ko seexul xadim nag doon ko xamal ne nag xanaa bëgg ngeen gan nag ci dëkk bu sell boobu nag di tuubaa bokk na itim nag ci ñu taxawu seexul xadima li ëpp Lamine Gaye nag moo mujje sëriñ bi mu wéy nag topp nag ci ginnaaw cheikh Mamadul Moustapha Mbacke léegi moom lay xoole nag cheikhul xadiima sancaatoon na beneen dëkk nag ci atum 1929 tudde ko nag Firdawsi Firdawsi itam nag mi ci suuf si nag di daarul muxti ci wetu dëkk bii nag di Touba belaluk sëriñ Touba cheikh Abdoul Ahad Mbacke Firdawsi googu nag yàggaay nag gum fa yàgg moo tax itam nag ñu di ko dàkkantele sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag Firdawsi na itam nag dëkk bu tudd Minatul Xoliya Minatul Xoliya nag kilomètres la sancaatoon na beneen dëkk nag bu tudd Busra Busra nag ñaari kilomètres itim nag moo dox digganteem ak Taayifa mi ngi ci wetu dëkk bi nag di Danki ñaari kilomètres nag moo dox nag digganteem ak Taayifa taalibeem bu ñuy wax nag Sëriñ Moodu Aram Gay nag la ko joxoon Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag moo ko joxoon ndigal itim nag mu sanc ko sancaatoon na nag dëkk bu ñuy wax nag Allahuma salli waaye dëkk bii nag dafa mujj gent sancaatoon na itim nag dëkk bu ñuy wax nag Firdawsi Salaam mi ngi woon nag ci wetu dëkk bii nag di Warak waaye dëkk bii itim nag ba tey itim nag dafa gent joxoon na ndigal nag taalibeem Moodu Fall Aram Kan ngir mu dem sanc nag dëkk bu ñuy wax Jaylaan Gay Jaylaan Gay moom nag soriwul dëkk bi nag di jamooy ak yeneen ak yeneen i dëkk nag yu mu sancoon yi nag ak suuf yi nag la nekkoon nag di liggéey di it ku baax ki Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ginnaaw Xaadim Rasuul itim nag mu di ko yit nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag ak njabootu Xaadim Rasuul gi góor yàlla yim àndaloon nag di liggéey nag ci dëkk yii ñu mën ca ràññe nag ku ñu wax Sëriñ Moodu Aram Kan Sëriñ Muxtaar Fall Sëriñ Alioune Kan Sëriñ Mbay Sëy Sëriñ Mbay Fall Sëriñ Moor Mareema Sëy Sëriñ Mbay Fall Faati Faala sëriñ Mbay Faal Kan sëriñ Mbay Gaya sëriñ Moodu Lamin Géya sëriñ Masayer Kan sëriñ Mustapha Kan sëriñ Baara Aminta Yàlla sëriñ Moodu Sekk Juma sëriñ Moor Kala sëriñ Baara Soxna Gay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñoom àndaloon nag di liggéeya sëriñ Mouhamadou Lamine Gay Firdawsi nag yoroon na ay soxna ci biir soxna yi mu yoroon ñu mën cee ràññee nag soxna Aminta Sëy mook soxna Aminta Sëy nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Moor Jaara Gay di ki sëriñ Mouhamadou ñuy wax sëriñ Alamine Gaye ak ku ñuy wax Seydi Lamine Gaye sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag Firdawsi yoraatoon na baneen soxna muy ku ñuy wax soxna Faati Gaye mook soxna Faati Gaye nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Sufi Gaye sëriñ Mañaaw Gaye soxna Awa Busa Gaye soxna Nafi Gaye di kim faye woon soxna Jaaratullaahi ba tey soxna yi sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi nag dëkkoo woon ñu mën cee ràññee nag soxna Faati Mbooja Gaye mook soxna Faati Mbooja Gaye nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Ceerno Gaye di kim faye woon maam Ceerno soxna jëmmu gay ba tey soxna yi sëriñ Mouhamadou Lamine gay Firdawsi dëkkoo woon ñu man cee ràññee nag soxna mbenn gay mook soxna mbenn gay nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee nag soxna aminta gay sëriñ fàllu gay di kam faye woon nag cheikh mahamadul faadal mbàkke ak sëriñ basiiru gay di kam faye woon nag cheikh mahamadul bachir mbàkke yoraatoon na baneen soxna nag bu ñuy wax soxna mareema jaaña mook soxna mareema jaañ nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee nag soxna mbàkke gay yoraatoon na nag baneen soxna nag bu ñuy wax soxna asan gay am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee nag soxna may Maymunatu Gay soxna yi nag la dëkkoo woon liitim nag mooy lenn nag ci njaboot nag yim ci am buñ fàtte ne nag sëriñ Mouhamadou Lamine Gay nag Firdawsi lu ëpp fukki doom ak juróom dañoo génne àdduna nag ci seen tuut tànk ngir xamale leen nag njabootuk sëriñ Mouhamadou Lamine Gay Firdawsi nag ñoom ñooy ñan doomam ji nag di soxna Aminta Gay bi mu matee dem kër sëriñ Masamba Aminta Jóob nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Masamba Aminta Jóob nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Fàllu Jóob sëriñ Moodu Omar nag lañ jébbaloon cheikh mourtada mbàkke ibnu xaadim rasul mu am ci ku ñuy wax sëriñ saaliwu mbàkke ibnu cheikh mourtada mbàkke ak soxna maam faati mbàkke ginnaaw bu soxna aminta gay nag jógee ci loxoy sëriñ masamba aminta jóopa daa dem nag ci sëriñ masamba asta jóopa mook sëriñ masamba asta jóom nag am nañ ak njaboot ñu man cee ràññee soxna asta maam jóopa soxna xadi jóopa sëriñ masamba jóopa soxna assu mataar jóopa sëriñ xaadim jóopa doomam ji ñuy soxna mbàkke gay bi mu matee dem kër sëriñ moodu aram gay nag lañ ko di ab taalibeem soxna Mbacke Gaye nag jot am njaboot nag ak sëriñ Modou Aram Gaye daa di génn nag àdduna sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag Firdawsi fobaat nag baneen doomam bu ñuy wax nag soxna Safiyatu Gaye yëbbalaat ko nag sëriñ Modou Aram Gaye mook sëriñ Modou Aram Gaye nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Modou Gaye soxna Mbeen Gaye sëriñ Jëmuñ Gaye ak soxna Anta Gaye doomam ji ñuy wax soxna Jëmmu Gaye bi mu matee dem kër nag alaaji Seex Jéey nag lañu ko jébbaloon mook alaaji Seex Jéey nag am nañu ak njaboot ñu mën cee ràññee soxna Ndey Jéey jéeya sëriñ Modou Jéey sëriñ Fàllu Jéey soxna Loota Jéey ak sëriñ Cheikh Mbàkke Jéeya njaboot gii nag ñu leen dégtal mooy lenn nag ci sëti sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag Firdawsi bi sëriñ Touba Cheikhul Khadim nag demee ci géej gi lii di autorité coloniale yi nag naroon nañ koo def ab kàddi nag ci tribunal nag bu Louga ginnaaw nag bu ko chef de bi nag woowee ngir xamal ko ne daal jikkoom nag doy na ko nag ngir mu def ko nag ab kàddi sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag nanguwul woon tubaab bi nag di ko xamal ne melokaan daal man nga ko sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag di tontu tubaab bi nag di ko xamal ne man sax doyuma sama bopp tubaab bi nag di ko xamal ne kàddu yii nga wax daal man nga ko sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag ci la binde woon lettre nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul boobu nag fekk na nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul nag mi ngi ci biir géej gi sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi nag bi muy bind lettre bi da koo bind nag ba noppi suul ko nag ci biir këram ginnaaw bu mu suulee lettre bi na fa nag beneen këyit nag buy wanee nag ab tontoom këyit bi ne sëriñ Touba Seexul Xaadim nag moo ko ko bind mu toll nag ci juróom fukki way nag ak juróom benn seexul xadim nag ma ngi ko cay ñaax nag mu gën a farlu nag ci jaamu suñ boroom lu mu gën a mën a daw àdduna itim nag mu daw ko ko loo gën a moytu itim nag bërëbu àttekaay itim nag nga moytu ko jaamu suñ boroom itim nag loo ci def itim nag du doy wax ju baree baree bari daal la ko seexul xadim nag doon tontu nag ci lettre boobu nag mu ko bindoon ñu teewlu nag jëmmi tontub seexul xadima ama baadu fa innaka ayuha al aqu muhammadu lamin gay hadaana allahu taala wa iyaaka walmuminin jaani kitaabuka fa wajadani mushtaxilan billahi taala maha mujahadi lil ahda falama manna allahu taala alayya bil ijaba fi ma kuntu atlubu minhu wa yubri min kulli dain ajabtuka bi isnin minhu taala wa min rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bi hasihi al abyat annafiat al mubarakat rajiyan min allahi tabaraka wa taala bi jahi rasulihi sallallahu taala alayhi wa sallam an yakuna jawabi hadha min al baqiyat as salihat wa huwa hurufi qawlihi wa yazidu allahu lazina ihtadaw hudan wal baqiyat as salihat khayrun inda rabbika thawaban wa khayru marada wajahtu kulliya liman hadani wa rada li fi al bahri man adani yaziduni هدا مع الصواب إن شاء رب جاد بالجواب سنت حروفا لك يا محمد نصيحة فيها وصايا تحمد يا صاحي لازم التقى والورع ولا تكن من القداة تبرع دم يا أخي على الفروض والسنن لوجه ربك الذي يحتي المنن أوصيك بالصبر وبالخنا ولا تهله تنل تطولا لله ربك الكريم فودا أمرك إنه يقيم من فودا له التجئ في علن والسر فلم يسل خير رحيم بر هو الذي إن لم تسأله يغضب وخيره إذا سألت غضبا أوصيك بالأدب fi alaqwaali wa jumlati alafaali walaxwaali laa tarfahi sawta wa tarkafax fida wabda salaamaka liman lam yarfuda laa taksabi dahra wa dum ala alamal walaw xalilan fa tafuuza bil amal zulla li rabbika bi taaxati rasul fi sirri walalani taxwi xayra suul yardal ilaahu xanka in rum taxtifa sunnati xayra alaalamin almuxtafa nahaaka rabbuka xan almuxaalafa li amrihi faltamisi almusaadafa ijtanibi alxaraama walmakruha walmushkil alladi ubi takriha himmataka fah lillazi laa yanfadu maa indahu yaatika minhu safadu tubli allazi mahma ilayhi taaba abdun wa xayruhu ilayhi taaba dum bilkitaabi ya axi ala huda rabbel wara fa innahu xayral huda wajih lahu kullaka yakfika darar wa mus bihi min kulli jalibin xarar ushku liman jalla wa hazza alwatara duna albaraya wal tufaarix batara huwa allazi yansu man bihi tazar wa huwa taala xayri kulli man nasar din bi huda alislaami fa huwa diinu wa huwa wallahu yaali man bihi yadiinu aslim li rabbika bihi bila iltifaat li gayrihi an kulli diinin lilwafaat wajih li rabbika alkarimi niya wal القول والعمل تحوي الطية أخلص له العلم مع الأعمال بأدب يأتيك بالمآل لوجهك الكريم قص واترك له يسخ إليك ما تحب كله به التمس في كل شيء مخرجا فإنه خير مخيث فرجا إليه سر بالصدق والتوكل فإنه حسب لذي توكل قلب له تجارة فتربحا فكل من رام رضاه ربحا يا صاحي لا تفعل لخير الله شيئا فذاك فعل غمر الله لإفعل لوجهك الأكرم المكرم تحوي الذي رمت وما لم ترمي طب من سوى ila ma lam yakun ridaahu wal tuxni bichey allazi yardaahu ilayhi tub min gibatin wa kasibi wa naxwi zeyni laka xeyran yajzubi li wajhihi lkarimi hibba kulla man amana musliman yatlub laka zaman salil faraida maa tawaabihi muraaciya nahja rasuli taabihi aska salaati llahi wa taslimi alayhi fi l ali sawi lculumi laa tabxidi lmumina wansax abada li kulli muminin bi xaqi abada hibba jamiha almuminina naawiya xeyran lahum takulli xeyrin xaawiya istagni billahi alkarimi almugni fa gayruhu fi abadin laa yugni tub min jali shirki walxafi الشافي إلى الخبير العالم العلي خفي الجليل القادر المقتدر ولرداه يا حبيب ابتدرا يرضى لك الشكر فرم الشكورا له عابدا شكورا رم منهما تريد سافتخاري له تعالى دائم افتخاري قس يا أخي من الرجيم بالرحيم فإنه بر حفيظ ورحيم ناج إلهك بقلب سلما من دنس الأغيار تكفى ألما دم يا أخي على تلاوة الكتاب فإنه يكفي العذاب والهتاب رم بتلاوة الكتاب ما تشاء من الذي يفعل كل ما يشاء بركة القرآن فاق الظن ففيه وفيهما عن الوراء استكنا بعد تلاوة الكتاب خاصدا وجه الذي يكفي المنيب الراصدا كتاب ذي الجلال والإكرام فيه جميع الصول والمرام ثواب من يقرؤه في الجنة دار الخرار والمنى والمنة وسيلة عند ملك مقتدر طوبى لعبد للكتاب يبتدر اقرأه في الليل وفي النهار لوجهه والسر والجهار به الفضول تلاوة الفخر تفز بما ينزي الخيول والبقر استخل لسانك بذكر من فطر تفز بمخجل البحور والمطر وتن لسانك أخي في الخير وكن صموتا عن جميع الخير خذ الذي يعرف واترك ما جهل وبالأزام ربك المغني تهل يأمرك الوهاب سل عطاء بالعدل والإحسان والإعطاء رمعون من جل عن المثال على التناب وعلى الامتثال من ظن خير الله يغني أو يدر فساك في الدارين سوء كد ودر رمحونه في كل شيء أبدا فإنه خير معين عبدا دهاك ربك إلى العبادة فاعبده بالكتاب سائرادا دائم تسليم الذي هداني وراد لي في البحر من عداني إلى النبي سل أجر والثواب يوصله ويقتبي جوابي موك شيخ ممدول مصطفى مبك Mbàkke bi fi xaadim rasool nag bàyyi ko cheikh mamadul moustapha Mbàkke nag la joxoon boppam dëkk boobu itam nag di kaajar cheikh mamadul moustapha Mbàkke itam nag ñëw na fa nag seet si fa sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag Firdawsi digganteem ak cheikh mamadul faadal Mbàkke diggante la nag bu yaatoo yaatu tudde na cheikh mamadul faadal Mbàkke dooma tudde na waajuru mu dul faadal Mbàkke doom di soxna awa buso kaajar googu itam nag mu dul faadal Mbàkke itam ñëw na fa ay yooni yoon digganteem ak cheikh ma mu Mbàkke diggante la bu yaatoo yaatoo yaatu sëriñ Tuubaa cheikhul xadim joxoon na sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi sëriñ Mbay Jaxate nag ngir mu jàngal ko xam-xam mu joxoon na sëriñ Mbay Jaxate nag Cheikh Mamadou Basiir Mbàkke ñoom ñaari jëmm yooyu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag yoroon na leen ci kaylaan kaylaan googu nag jiwoon na fa ak guy tudde ko Cheikh Mamadou Basiir Mbàkke guy ga nag ba nëga ni nag ma ngay dund tudde woon na itam nag Cheikh Mamadou Basiir Mbàkke dooma sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke pencum sëriñ Touba Cheikh Souhaïbou Mbàkke bii sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag Firdawsi moo tax itam nag sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke jot si dafa am bis sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nag seet si woon ko di ko xamal ne kër gi nag laa soxla woon sëriñ Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi nag di ko xamal ne danaa la teg nag ci aw yoon woo xam ne ni daal soo ko wàccul da nga mën a jot nag ci kër gi da dem nag laaj ko nag Cheikh Mamadoul Moustapha Mbacke laataa nga koy laaj nag Cheikh Mamadoul Moustapha Mbacke danaa dem nag jébbal ko kër gi ca fan yooyu la sëriñ Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi dem nag ci Cheikh Mamadoul Moustapha Mbacke jébbalaat ko kër gi ginnaaw bu fa sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nag demee di laaj kër gi nag Cheikh Mamadoul Moustapha Mbacke nag di ko xamal ne sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi min joxoon kër gi ñëw na nag ba jébbalaat ma ko waaye nag kër gi nag mën nga koo jël nag féete woo ko kër gi nag li ci jotale woon nag sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye daa am bis nag mu romb kër gi mu ràpp lool mu dem nag ci Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag wax ko ko Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag di ko xamal ne kër gi nag mën nga koo defaraat nag te dëkke ko sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye waaye nag duma ko dëkkee dama koy téyal nag seeni boroom nag bañ soxla ko mu fa nag ñaari donga muy ku ñuy wax nag sëriñ Sayar ak ku ñuy wax Baye Serigne Kane jox leen kër gi nag ñu nekk fa nag comme yi bëkk néeg bi Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke nag jotee ci kër Serigne Sayer kan nag ak Baye Serigne Kane dañoo wéy nag des nag ca kër ga Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke ku fonkoon Serigne Mouhamadou Lamine gay nag Firdawsi la jabootu Serigne Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi nag joxoon na leen suuf su yaatoo yaatu nag ci Touba suuf soosu Firdawsi nag lañ ko tuddee noonu mu ko ame woon nag ak njabootu Cheikhul Khadim gu góor gi ni la ko amee woon nag njabootu Cheikhul Khadim nag gu jigéen gi daana wax ne doomu Cheikhul Khadim wala mbokkum Cheikhul Khadim xamul amul kum ciy boot di kaataka ca desa mag ñi toppoon sëriñ tubaa seexul xaddiim ñu jaxasoo woon ak moom lañ maam ceerno ibrahima faati mbàkke ndaamal daaru sëriñ mohamadu lamin ngay firdaw si tudde na ko doom maam ceerno itam nag moo ko jox suufa mu sanc nag dëkk boobu ñu tudde nag daarul xayri te ngeen koo xam nag ci tuubaa gay moo ko joxaat suuf mu sanc itam nag dëkk bii ñu tudde firdaw si nekk itam nag ci wetu tuubaa bela la lu takkoo takku itam nag fekkante nañ nag ci dëkk boobu nag di njiig faal ñoo bokkoon nekk itam nag ci ëttub seexul ko seet si itam nag lu baree baree bari ku jaxasoo woon ak sëriñ mandumbe mbàkke xabaan la séq nañ itam lu baree baree bari sëriñ mbàkke bu sa itam nag kasaalika sëriñ baara gay faati mbóoj nag ñoom ñaar moom ay mbokk lañ te seenu ànd itam nag dafa yàgg li ko dale nag ci ak tuut tànk ba niñ bokkee nag nekk nag ci ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ñoo bokkoon itam na itam nag seenu njaboot nag jaxasoo ñaari kër yooyu nag góoc ci dugg da nga fa fekk nag surtout ka ca des sëriñ baara gay xari faalitim ku jaxasoo woo nag sëriñ la seexul xadim nag daana wax ne sama ñetti baara yi sëriñ balla awa njuga bu daaru muxti itim ku jaxasoo woo nag sëriñ mouhamadou lamin gay firdawsi la sëriñ moodu faati ali itim nag kasaalika sëriñ moodu gay jëmooñ ginnaaw buñ bokkee ëttub ku baax ki sëriñ tubaa xaadim ñoom ñaari itim ñoo bokk jëmooñ jaxasoo woo nag sëriñ moodu baara la di taawu cheikh mouhamadou lamin baara mbàkke sëriñ moodu baara nag gane woon na sëriñ mouhamadou lamin Lamine Gaye ci dëkk boobu nag di Firdawsi ginnaaw bu mu ko gane jee nag ba ñibbi sëriñ Moodu Baara nag defoon na ay way nag ci jàmbaari Seexul Xaddiim jooju soo delloo nag ci way ko sëriñ Moodu Baara nag mu ko santee nag gërëm ko mi xamal ne daal na ndam di ko xamal ne daal jullit yépp am nañ ndam ci lu baax nag li nga dëkkee ab jant nga boo xam ne nii daal soowu nag nga fenkee waaye nag sab leeraay nag egg na nag ba ci penku bi yow kilifa nga goo xam ne ni daal su bëccëgee yaag doomu aadama yi nag yéenay tolloo waaye nag su guddi jotee nag ñu xam ne nag doo seen moroom lu yaatu daal ko sëriñ Modou Baara daal di tàgg ci ay jikkoom nag ak melokaanam moom sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi nag ñu teew teewlu ko taxran li tuuba ala kulli bilaadi bi man أولى البرية معروفا وعرفانا شمس من الخرب قد كادت مشارقها بل دونها الشمس يوم العرض برهانا أغر ما أهرقت أيدي الفتام به إلا وأضحى بماء المجد ريانا تكاد تقرأ في الآلاء خرته من سورة العزة القعساء وعنوانا له من الفكر ما تحنو لأيزره ثواخب الزهر إرشادا وإسحلانا ألا وسيرة النون تلقتها إلى وقار يداهي هدي سلمانا مصاحب حسن الفهل الخير يعشقه مراخب ربه سرا وإعلانا يقضي النهار بآراء مسددة ويقطع الليل تسبيحا وقرآنا لأي ورد تولى اليوم وجهتنا وغد غدا بحره الطامي مرجانا لئن منحنا بلعظ من مواهبه لنا ثريا وكان الخير عقبانها شفى بقف العلا مرضى درايتنا لما أفاد مع الإضاه إتقانا هيهات من في القوم يشبهه هل السراب يداهي الخيث حتانا وهنه فأنت الذي aw llahu xaaliquhu min almalaika ansaaran wa alaana wasmax lana min qawaafin laysa munshiuha min ahliha bayda an alxubba ahrana suma salaatu bi taslimi alayhi ma al ashaabi ya rabbi wax fit kulla man xaana am na naarub gànnaar nag buñ doon wax nag abdul wudóor ibnu mohammed nag almajalis defaloon na ay way nag sëriñ mouhamadou lamin gay firdawsi soo delloo nag ci way yooyu nag naar bi defoon nag di abdul wudóor nag ibnu mohammed almajalis mi ngi koy xamal ne nag bi ma dikkee nag ci dëkk bii nag di firdawsi fekk naa fépp nag taale alxuraan alxuraan nag di fa tàkk fekk naa ñëpp itam nag ñuy jàng nag alxuraanul karima naar bi itam nag mi ngi xamal sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi bëgg gi ma la bëgg ba bëggaale nag lépp loo am dafa mel na daal luñ ma mooñaale la nag bi may feeñ jamono mi ngi wax nag sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag yàlla na la yàlla fay bu fekkoon ne nag yàlla am na secrétaire nag ci kaw suufa ma ne bokk nga nag ci secrétaire yi suñu boroom yi lii di sariya lu ci waaye jaaxle wala أسك تحيتي تقود إليها من جزيل العتية تقر في زي عينا بحكم الشريعة على جميع الخيرات من كل وجهة ويطلأ بها القرآن من كل جانب توضح شرح الهادي أوضح حجتي وفجر فيها الرب في بحر غيبه عيونا بها تعلو كالهند على كل بلدتي وتجعل أمنا للغريب وخاتني وسم به عما سواها استقلتي ولا زالت الأمطار تطرى بصوبها وهذا عزب المختار حيث استحلت ولا خاب ما ترجو بها كل لحظة بلا شوبة من علة أي علة وتكبت للهادي على الرغم أن فيه وتدرد سا ظلم لأجل الجريفة جبلت على حبي لأمرك كله فحبك في الأشياء طرا جبلتي فجزاك رب الحرش عنا كرامة إذ أنت أمين الله مسد الشريعة ولا زلت في عز منيع وغبتة في أعظم تبجيل وأحسن هيبة توادحت للرحمة لأي تواضع في yajur bika rabbul xarshi arfa rifxati xalal bisti min wajhi firashin nazilukum yusaadifuhu nuunun bi nafsi tahiyati fa haza dalilun fi lamanati waadihun ala sunnati albaydai min aqwa aladillati wa sala ilahi alarshi jalla musalliman ala alhaadi wal asaabi kaashifi alillati ku jaxasoo woon nag Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma la ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñoom jaxasoo waloon nag ci ëttub xaadim rasuul bi boroomug may la woon boroomug may googu nag mu nekkoon tax na itim nag Serigne Cheikhouna Gaye moom Serigne Cheikhouna Gaye defaloon na ko nag ay way fay di ko jàmbat nag ngir mu taxawu nag sëtam yi ci lépp loo xam ne nii nag bëgg nañ ko nag ci àdduna itim nag ñu am ko lépp loo xam ne itim nag ñu ngi koy wut itim nag ci àllaaxira suñ demee itim nag fekk ko fa ñu teewlu nag waye njàmbat bëgg nag saafara yu ko sëtam bii nag di sëriñ Seexuna Gay moom sëriñ Ceerno Gay nag defaloon maraqloon ba mujj yooyu soo ci waxul léegi ñu jooy wala ñu dee sasasu booy moo tax ma jug di jéem a way ku nee nga yor wata yu neex mi di gu joñ mu añ lu neex toog fi këram lu neex lu ñu am may ñu ko tey soo ñu wax ci kaw soo ko kaw soo doy sëriñ bi yow yaa sëriñ waaju la toppit gis njëriñ bis ne ko tey yaay suñu sëriñ tey ëllëg yow yaa ñu doy waaju la mos du sax leneen waaju la am bëggut keneen yow koo takkal yëpp sa jeex say ku la sax leneen du neex yaay géej gu ma ku ne di duy ñëw naa fi yow boobu sa kanam saay waajurul ak li ñu am lépp lu baax may ñu ngërëm ak yi sant gay wet li na dem jëmboy wala mu dem firdawsi gay busraag mel na tubaa gay jàkk ak gërëb fes na moom faamu mu jooy sëñ Touba seede ci moom maam Thierno yi seede ci moom kilifa yu baax seede ci moom ne mooy kamal yàllaa ko may ñi jaar ci moom bari na lool ku ne ngi tey yore école ñi ne imaam yu amee xel sëriñ bi yow yaa leen ko may man sab satit ñaan ko xam nañ ne yow yow am nga ko lépp lu baax indil ñu ato yu baax milliards yu doy def ci ñu ñu gën la yow wala ñu baax ba mel ne yow yomal xiyaam gàddu ko yow te sag naqar bu duñ fa jooy 1941 ci 1941 bi nag la jóge nag ci Minatul Holiya jaar Taayif nag ziyaare Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke tàggu ko di ko xamal ne daal sagar daal dafa war a jegeeb sën maa bëgg a wàññi itam nag samaw yoon ginnaaw bu mu waxee kàddu yooyu Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ba noppi la ko jox nag addiyee nag mbaam mam daa war Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke nag moo ko jox oto nag bu tudd karoota mu jëlee ko Taayif nag indi ko Mbóojeen Mbóojeen nag mi ngi ci wetu dëkk bii nag di kër kàbbu ginnaaw bu mu ñëwee Mbóojeen nag waroon nag ci wetu kër kàbbu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi nag mi ngi génn àdduna bisub ajjuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru baraxlu ci atum 1360 nag ci gàddaay gi ajjuma fukki fan ak juróom-ñeent nag ci weeru baraxlu ci atum 1360 ci gàddaay gi dëppoo muy vendredi 12 septembre 1941 vendredi 12 septembre 1941 ci suuf sim amoon nag ci wetu kër kàbbu te suuf soosu nag mu tudde woon ko mboojeen ci suuf soosu nag la génnee àdduna ñu yëgal ko nag ki fi nekkaloon sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul di cheikh Moustapha Mbacke nag ca Taïf yëgal ko itim rakkam ja nag cheikh Mamadul Faadal Mbacke cheikh Mamadul Faadal Mbacke moo sàkku nag ci waajuram cheikh Massamba Mbacke ngir mu taxawu nag jàmbaari cheikhul xadim jooju cheikh Massamba Mbacke nag moo jullee sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye nag Firdawsi ñu jébbal ko boromam nag ci armeer yu mag yi ginnaaw buñ ko jébbalee boromam nag ba noppi cheikh Mamadul Moustapha Mbacke seede na nag ci moom di wax ne nag boo doon tànn nag ay kenam tàmbalee ko nag ci borom baraag bii kaddu yi nag la ko cheikh mamadul moustapha mbàkke seedeel ci teewaayu nag mbooleem doomu cheikhul xadim yi ak mag ñi mu doon liggéeyandoon nag ci ëttub cheikhul xadim bi soo delloo nag ci marché nag bu ko sëtam defal sëriñ Cheikhouna Gaye moom sëriñ Thierno Gaye moom sëriñ Mouhamadou Lamine gay nag Firdawsi mi ngi jooy nag maamam jooju ci pësséef nag bu mu amee woon nag ci roon xaadim rasool la farlu itim nag gum defoon nag ci roon xaadim rasool la taxawaayu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye daal Firdawsi lañu sëtam bi nag di sëriñ Cheikhouna Gaye nag di nettali ñu teewlu ko ndegam rasool na xëy na mes nañ xam ne fii kenn du fi des bugam xa xam na gaaw a gas sax mbamil na ca nërëm duniyaa ko bon nañ ko dawit duniyaa ko yées nañ ko wanit gannaaw ndax nu rawet yaa fi buuri teg nu yërëm koo fi gis néew la bu dox balaa yàgget fat ko ci pax dëkki cëram tëral du wax ñu koy robit duñ ko yërëm Seex ma Lamin yàggan ni bàyyi Seex ma Lamin yàggan ni yaay Seex ma Lamin yàggan ni yaay yàggal lu ne mosoo yësam daa joxe tëral lu rëy daa nga lu baax di doy ba gont a lu baax lu ne daa nga jëfit lu baax lu ne ba am nga yow lu baax lu ne lii la saxoon ba dem këram taalibeem bii ñuy wax nag sëriñ Baara Seck moom itam nag defal na ko nag am marsiya di jooy nag jooy gu mu ñàkk nag sëriñam ba ñu teewlu ko yooyu dag jë mooy ba am ne xuréet lu moom nga làq na xuréet adduna yëngu na bëreet cay waa yow naka pexe yow ki ma doon sa ndaju xol su ko gisul xelam du dal man bàyyi naa kat xëy di pexe man adduna tuuti ma ba ko fi lu man di def ma ba ko fi waa ji ma bëggoon a la mu defoon mbaa la mu waxoon nga wax ne moo sutu fan ak mépp mépp at ndaxuk texe mbiram mi raw na mépp xel ajuma kat lañ ko toxal mbindeef yi daal di jëmi xel jëm si Tuuba ànd ak texe feeñ na xaama sarahin ginnaaw boobaam ba feeñ sarahin wujj na yàlla am xasin jëmam ji wéy na guy texe kay laande yéen naka pexe jay laande yéen naka pexe yéen waa jëmooy naka pexe yéen bokk leen mennum pexe firdaw si def na fay garab jëmooy gayit def na fay garab fu masa ne jiinay garab fu masa egg ñooñu taxe moo yàgg saafu kooru boroom moo yàgg saafu julli juróom dafay nekkoon di wut boroom ba yàlla naan ko kaay texe askan wi yàlla na sàmm leen barke bi yàlla na leen moo rag ma ñaaw cernoog lamin ñu an ak xalifaam nag nii la tëdde nag moom sëriñ Mouhamadou Lamine gay nag Firdawsi li ko dale nag ci atum 1941 ba ci atum 1970 kam faye woon maam Mor Jaara moo ko wuutu di sëriñ Mor Jaara gay ñaareelu xalifa sëriñ Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi ci atum 1970 la ba ci atum 2004 di sëriñ Alamine Gueye ñetteelu xalifa sëriñ Mouhamadou Lamine Gueye Firdawsi ci atum 2004 la nag ba ci 2004 di sëriñ Mañaaw Gueye juróom-ñetti weer nag la wuutu waajuram wa liñ tudde nag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 wax sëriñ ma ñaaw gay ci nekkinam daana def nag fukki fan ak juróom-ñeent nag ci weeru baraxlu nag saa bu dikkee mu wàcce nag ay kaamil jagleel ko nag waajuram wam woowu bi sëriñ Alamin Gay nag toogee xalifa wutaloon na bis nag waajuram nag sëriñ ma Lamin Gay bis boobu nag wutalu ko woon bis fixe nag ci at mi saa bu ko jekkoo nag la koy màggalal màggal gi gën a fés daal ci sëriñ ma Lamin Gay mooy bis bi ko sëriñ ma ñaaw gay nag daa defal muy fukki fan ak juróom-ñeent nag ci weeru baraxlu di bis bi mu génnoon àdduna bis boobu itam nag ba nëgëni njabootuk sëriñ ma ñaaw gay boobu nag di daarul xayri ñu gën koo xam nag ci Touba Gaye nekkitim nag ci wetu dëkk bii nag di daarul muxti ñu ñaan ca jàmbaaru Cheikhul Xadim nga ka Cheikhul Xadim daa wax ne Serigne Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi mu baax mi te murit yëpp gën koo xam ci Serigne Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi ngir dëkk boobu mu sanc nag di Firdawsi yàlla ñu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu nag ci barkeem lii di jafe-jafe mi itim nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajay Cheikhul Xadim amiin Cheikhul Xadim amiin Cheikhul Xadim amiin Cheikhul Xadim amiin Cheikh